cher ami et fidèles internautes de Télé Sénégal, ravi de vous retrouver dans ce de semaine, comme nous l'avons fait du lundi au jeudi dans votre mission 2024 plus. ñu ci ànd ak yéen saa su nekk ci ak suñu ay invité fas yéene waxtaanee lu nga xamante ni lu jëm ci wàllu actualité la ni ki tey nag ñu fas yéene waxtaanee lu yaatu yaatu lu jëm ci secteur informel bi nga xamante ni nag am na ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni dañ koy am ci koom-koomu réew bi ñu fas yéene cee ànd ak nag ki nga xamante ni moom moo di Dame Badiane Dame Badiane nekk. Euh, ki nga xamante ni moom moo jiite mouvement secteur euh, euh, informel di Sénégal ñu fa yéene ànd ak moom ci euh, jotaayu waxtaan bi wante laata ñu ci soobu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi ak téléspectateurs yi laataa ñuy door li nga xamante di wax di waxtaan bi monsieur Badiane maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog internet yi. ñu ngi lay fay mm-hmm. bismillaahi rahmaani rahiim. wala hawla illaa billah mm-hmm. rabbi rabbi yassir li sadri wa yaghfir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli salaamullaahi aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mhm. sëñ Ibrahima maa ngi lay nuyu di la siyaare mhm. di nuyu mbokk internet yëpp mhm. di nuyu waa Sénégal waaye rawatina marchand ambulant bi nga xam ne tey samay toog fii ñoo tax ma toog fii di nuyu samay soxna waaye di nuyu samay mbokk waa Saalum yëpp waaye nag particulièrement patal Sène mi nga xam ne tey lépp ñoom la mm-hmm. barki démb nga gis taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw nañ ko ci tribunal bi mm-hmm. bañ bëggee taxaw laal koo xam ne seen xolle ci ñoom mm-hmm. te li tax mu doon seen xol ci ñoom rek mooy nit moom njëriñ rek lañ koy defee te ku amoon njëriñ kenn amu ci yow soxla waaye boo gisee nit di mel ci nit yenn yenn kii yi rek day fekk ne danga ko amal njëriñ absolument moo tax démb waneen nañ ko ci tribunal bi kon nag particulièrement participateur seen mhm. alkayda euh, euh, marché xadi wasaali gi waa Sandaga mhm. marché ambulant di Sénégal yi yëpp mënuma mhm. ñàkk ndeyu nag euh, Marcelin Ndour sama mandataire nga xam ne moo jiite ouvrier Sénégal mu am Pastef lool doon jàmbaar te man lu ma soxal rek sama yoon ni ko ci leen secteur informel bi daal laa bëgg rek mu dox mm-hmm. euh, mu jaral ma nag lu nekk loo xam ne rek euh, mm-hmm. li ma ci mën a wuy si rek incha allah mm-hmm. jaral nañu ko waaye nag secteur bi xam ne am na benn waay bu taxaw ñu koy wax daan bajaan euh, fas yéene coon yi nga xam ne secteur bi ñu ngi koy dund seen loxo tutuñ seen gannaaw ñu pare nag ko taxaw ci loolu te jàpp naa ne képp ku ñëwatu ci war ngaa fexe def tout pour ànd ak mutu loolu ngir sa njëriñ mhm. te ñu moom suñ njëriñ dañ ko jël teg ko ci gannaaw te xam ne àddina moom mhm. diggante fi ngay juddoo ak fi ngay dee mhm. dara xaju ci jéem a def lu baax loolu tax ñu bëgg continuer suñu liggéey ba nga xam ne te nit bi dund bëgg na wayu rafet ëllëg loolu daal moo tax ñu fa yéene liggéey suñ njaboot ci à fait du ci waa Sénégal yëpp di bi nga xam ne moo gën ci nuyu. Mm-hmm. nii asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Mm-hmm. ko bu baax ci wuy si bi ñu wuy si ci émission vingt 2024 euh, plus euh, danañ ci ànd ak également ak euh, suñu chroniqueur di jour muy Cheikh Kane xam naa ne dafa xaw a xaw a retard moom mooy moom lay àndal ci émission bi ak chronique yi nga xam ne daf ciy daf ko ciy def ñu ñu door waxtaan bi doore ko ak li nga xamante ni moom moo di mouvement bi mouvement secteur informel ku wax secteur informel. xam ne ne euh, bëri na ay sensibilité yu yu nekk ci biir marchand ambulant yaa ngi ci biir commerçant yi ñu ngi ci biir ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum koom te nekkuñu dans dans le formel mën nañu wax ne ñu ngi ci ñu ngi ci biir est-ce que tey mën nañoo xam yan sensibilité ñoo bokk ci biir mouvement bi ak lan moo sabab ngeen taxawal li nga xamante moo di mouvement boobu la. alhamdulilah ba la ma wax sax maa ngi la ma war na njëkkee. Mhm. dama ko mujjee te maa ngi jéggulu ci ci Sénégal mhm. suñu kilifa diine yi. nga xam ne tey fu Sénégal toll tey ñoom la. kon jàpp naa ne nit wartu wax dara te jiitaloo leen ci. Mm-hmm. ñi ngi nuyu kilifa diini yëpp. Mm-hmm. particulièrement sëriñ Maay Ibrahima Niass Mirena Baye. Mm-hmm. sëñ Muntaxa euh, ñu koy nuyu sëñ Mbay Si Mansour. Euh, ñu ngi nuyu ñëpp képp kilifa diini dal foo waay mën a nekk rek. Damba Diagne mu ngi lay nuyu. di la tàggat di la jox sa wàccuwaay di sàkku ci yow ñaan. di am kontaan nag bu baax ci. question bi nga xam ne moom nga ubbee. Mhm. mu neex ma loolu mooy mouvement M6 ak lan moo waral mouvement M6. M6 mooy ni ñu ko tuddee mooy mouvement M6 lakkale développement du Sénégal secteur informel. bu ñu lakkale kon xam na ne kale moom ñëpp soxla nañ ko moo xam caabi kër la moo xam oto la moo xam moto la moo xam ak lu lu mën a doon rek. Mhm. caabi moom ku ne euh, soxla na ko. Mhm. te caabi moom ku ne xam na ne day ubbi. Euh, te lépp ñu bëgg ko ci jàmm. Euh, secteur informel bi nag ñu ngi ko maa ngi ko lëkkale ak mën naa ne Sénégal yëpp. Mm-hmm. parce que ñoo ngi ci biir ouvrier euh, yi ñu ngi ci biir. Mm-hmm. plombier yi ñu ngi ci mécanicien yaa ngi ci tailleur yaa ngi ci. Mm-hmm. pes waa pes ñu ngi ci. artisanat bi ñoo ngi ci. mbabas ñoo ngi ci maanaam ñenn lañ amagut mooy ñu nga xam ne ñooy jànq ménager yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu kër yi. ci loolu laa nekk na pour mën leen na kii pour mën a euh, ñëw intégré ci li nga xam ne kii lañ nekk te lu waral lool ma am gis-gisu euh, taxawal mouvement bi mooy dama gis ne Sénégal mm-hmm. li fu waay doon rek li fu waay nekk rek ñun ñoo la ko def mm-hmm. te ñu gis ne heure bu nekk boo soxlaa da ngay ñëw euh, ñu defale li nga xam ne soxla nga ko heure bu sa aajo fajoo nga tëj say bunt mm-hmm. boo ko ubbiwaatee da ñoo soxlawaat ñu ne loolu dafa war a jeex tuuti ñu ko nangu li nga xam ne ñun ñoo ko moom dootuñu ko joxote kenn dañuy fexe teel ko suñu bopp. Mm-hmm. mooy moo tax nit taxawal mouvement bi bañ ko taxawalee te premier acte bu ñu njëkk a def mooy. Mm-hmm. élection jot na maire yi ma ne damay laaj sama commune. Mm-hmm. Eh, ñu ti mu nekkoon huit candidat nag yàlla def it ba may dem booba samay moyens rek laa demee. ànd naa kenn te ñëpp dañ leen ngeen woon waaye ma taxawal sama bopp rek continuer fekk fa ay ñoo xam ne ñoo ma jiitu ci politique. Mm-hmm. waaye ma génn quatrième position am ay conseil loolu mm-hmm. mën nga wax ay jéegu la yoo xam ne benn marchand ambulant bu nekkoon ci secteur bi. Mm-hmm. wane ne suñ mbir du woon dañ ko yemale rek nekk ci tali bi di dàqante. waaye suñ niveau yegg na ci yeneen côté jàpp ne bànqaas bu nit war a yor rek ñun war nañ ko mën a yore. bañ baxee ko ci loolu ñu ni fa la ñee mën a déedéet réew mi ñu ko ñëpp yoree war nañ ko ko mën a am yoree mm-hmm. ndax euh, ñu ko yor yëpp ay sénégalais lañ mm-hmm. dañ see judd yor fi waajur ñun tamit judd fi yor fi waajur kon nag nañ def ba yor ko te dàqul ñu ko yor kon war nañ ko mën a suñu bopp looloo taxoon ni bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon laaj réew mi 46 mm-hmm. euh, département yëpp nag am yàlla may nañu ñu am fa ay euh, parrainage yu am solo yoo xam ne ñun au mois avant élection ñu ndax ñi ñoo nekkoon 247. Mm-hmm. xam nga kon kooku yeex naa jóg. waaye gaa yi def ci pour taux de participation bu am solo. Mm-hmm. bébé bi nga xam ne moom la ñu amoon na pour dem yàlla def na antuwut waaye terewut comme tàmbali la ñu ngi ci terrain bi di ci liggéey. te gis nañu dipp boobu ak léegi gars yaa ngi ci adhéré bu baax di gën ni ñëw. Mm-hmm. pour wan Sénégal yi daal ne la ñun dootuñ ñoo xam ne dañuy pare rek nekk ci terrain bi di dàqante. tey jàppal na si kiyal na fële. mais loolu dafa war a jeex takk. na il fallait autorités yi fi nekk nañu respecter Sénégal yi respecter secteur bi te xam ne man dama gis ne secteur informel bi responsabilité ba mu am ak lu mu ñemee ak lu mu ñemee def mhm. bi amul benn fonctionnaire bu ñeme loolu amul mhm. ndax euh, secteur informel maanaam marchand ambulant mu mën a am léegi cent mille mhm. waa juróom na ko kaara na ko ah man kenn maa manqué nanga mu jël xaalis bi ah, waaye ko ko des ak yàlla loolu te fonctionnaire bi ne mu ngi xalaat ne tey su ma fayee ko su ma defee lii tey liy solde bi rek laa amoon kon mu ngi communiser ni mu nu mu fajee soxlaam boobu. Mhm. loolu nag fekk ko ci marchand ambulant bi. Mhm. wax nga ko sànq mouvement bi euh, nga lan moo sabab mouvement bi lu am solo la mais tey euh, dañuy xool dañuy saytu ci biir secteur informel parce que boo xoolee euh, ci bureau international di travail par rapport ak li nga xamante ni moom mooy joxe nañ ko lu jëm ci wàllum taxawaay bi nga xam ne secteur informel daf koy daf koy am boo xoolee presque ci Sénégal lu jëm ne moom mooy emploi presque secteur informel bi moom moo koy moom moo koy moom moo koy absorbé boo jëlee presque juróom-ñeent ci fukk yoo jël presque ñu ngi daane ci ci secteur informel bi euh, tey jafe-jafe yu bëri da ngeen koy rencontrer souvent ci li nga xamante moom moo di moom moo di seen liggéey est-ce que mouvement bi mu ngi prétendre à ce que mu am une collaboration parfaite bi nga xamante ni entre l'État pour ngeen jéem a xool nan ngeen di formaliser li nga xamante ni moom moo di secteur informel bi. waaw euh, li nga wax rek xam nga Damba Diagne fu képp koo xam ne jàpp naa ne bëgg ngaa jàppale Sénégal. Mhm. bëgg euh, rawatina secteur informel bi da nga wax ak Dame Badiane. Mhm. te loolu la yàlla def ndax secteur bi ku ma ko gën a maîtriser gën koo xam. te mhm. bu fekkee ne dégluwante am na ci. jàpp naa ne da nga tegu ci yoon woo xam ne ndax yoon woowu ci laa gën a teg état bi nga xam ne ñoo fi nekkoon. mais par la suite la ba lu leen dal dal la. te SONES bi SONES la boo xam ne bu ñu la xasee woon gën a war a mooy ñàkk nga lépp. ndax euh, ñun dañ ne dootuñ nangooti te su li may wax sama gars yi am na loo xam ne war nañ koo jombale suñu bopp ndax dama teel a seetlu xool gis ne ñun lépp ci kaw lañ koy lañ koy teg mm-hmm. bu ñuy rey ñun la ñuy rey bu ñuy jàpp ñun la ñuy jàpp bu ñuy teg ñun la ñuy teg bu ñuy yàqal ñun la ñuy yàqal mm-hmm. loolu dafa war a jeex loolu moo tax gars yi heure bu nekk li may dugg seen bopp yi mooy lépp lu fi nekk ñu yàq ko mm-hmm. suñu alal la waruñ ko nangu jàpp naa ni war na mën a mer Euh, faj soxlaam. sans nga yàq li nga xam ne da nga bokk ak Sénégal yi. Mhm. dèjà loolu ñun ci liggéey boobu lañ nekk. Mhm. lépp loo xam ne lu baax la ci réew mi nag jàpp ne da nga fa gis Dame Badiane bi ñu koy defar waaye lépp loo xam ne li yàq ci moom jur nga fee xool Dame Badiane ndax ko fa gis. Mhm. te loolu xam nañ ko ci Dame Badiane man daal développement ak xettali jaamu yàlla yi. ak ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw ñun ci logique boobu rek lañ nekk. ñun nag euh, jafe-jafe yi ñu dund dafa yàgg sa turo ndax li ma gam mooy bu fekkee ne doomu aadama bi dafa am foo xam ne dafa nekk dafa yëngu. Mhm. Euh, muy wax ma la sax un an. Mhm. mais six mois rek mu nekk waxuñ ko dara sax. Mhm. heure boo ko fay jëlee ëllëg waroo ñëw rek def ko comme ku tekkiwu dara war nga ñëw toog waxtaanee moom na ko ah fii nga nekk nii kat. dëgg dëgg du palaasu liggéeyukaay. secteur la boo xam ne voie publique la ko bokk ak ñëpp. yaa ngi si nag du lu la gënal. duhut lu ma duhut lu ñu gënal. Mm-hmm. mais li nga xam ne dañ ko bokk Sénégal yi naka la ñu war a mën a def ba kenn bañ lool lor sa moroom. Mm-hmm. ñu réglé ko mais loolu yëpp di gës nañu ñoom duñ ko def. Mm-hmm. dañuy jékki-jékki rek toog seen bureau yi rek xaatim benn mbir rek. Eh, exécuté ko te fekk na ñoom ñu ngi lor seen bokk ñu ngi loolaale te lañ bëgg duñ ko def. te président dafa defoon benn projet boo xam ne. Eh, liir naa ko ci sama jàngat ak sama xam-xam bu néew. mooy horizon 2035. am nga lu ma ci sonn liir taal. su ma ko gisee mooy nañ fexe fii ak 2035 ñu am xarkanamu Ndakaaru gu rafet gu yàññi. ma ne loolu mënoo koo nas ba pare doo ci waxtaan ak ñi nga xam ne. ñoo nekk ci bi. si boobaa seen programme dafay lajj. lu ma gëm mooy loolu ba nga koy xaatim du ko bind di ko euh, teg. war nga leen ci ngeen ñëw ñu ne ah ñun kay lee lañ bëgg. lan ngeen seen xalaat ñoom ñu boole ak lañ jàng. ak luñ jàng. ñu dajale ko te gëm naa ne ci boobaa ñu suñu xalaat la ñu jël ndax leer nañu suñu xalaat si boobaa moo leen defal li nga xam ni moom lañ soxla te jàpp naa ni kilifa yàlla folu ko pour nga jaay doole sa askan ndax yàlla dafa maam kilifa mënta ñàkk ci loo mën a gis kilifa gu gis rek yërmaane la war a nekk ci askanam mais yàlla joxul ko pour nga leen jaay doole pour nga leen toroxal pour nga leen mais souvent euh, yenn ci déguerpissement yi nga xam ne dañ koy def euh, gis nañ ko euh, fi nga xamante moo di Grand Yoff gis nañ ko également récemment Colobane souvent da dégloo ñi nga xamante ñoom ñoo di kilifa yi dañ naan jox nañ leen ay sommation interpellative benn yoon wala ñaari yoon pour ñu quitter ci lieu